sëriñ bi soxna si bu dee yaa ngi soog a dugg ci chaîne bi di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné wu ba noppi ba sa cloche de notification bi la ngir mën a jot suñu vidéo mbokk internet ju TNM TV de près on se comprend mieux ginnaaw nag buñ leen yoo di leen ziar di nuyu suñu kilifa diine yi rawatina xalifa général des Mourides muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké jamono ji sax ñuy wax génn mu ngi ci dëkk bu sell bi di Poroxaan ci Poroxaan boobu nag la ñuy waxtaanee waaye tamit ñëw ci xibaar bi nga xamante ni daal dinay daanu si ngoon te ñu jàpp ni ci wàllu traitement ci tasumkaayu xibaar doonu lu wér doonu lu wóor loolu nag moo waral ñu nar a andi ay leeral ci diggante boobu nag mu jëm ci njiital partie Pastef muy Ousmane Sonko ak Serigne Abdou Mbacke ak Serigne Abdou Mbacke mi nga xamante na ak Serigne Mountakha Mbacke tey ci àllarba ji waaye nag wax yi nga xamante ne mu jëmale ko e, ci njiital parti Pastef am na kuñ si andil ay leeral te mu doon loo xamante ne e, lu wér la waaye nag ngeen te daal leen ko dégtal e, ci bile interview nga xamante ne dañ leen koy dégtal yéen bokk internet di TNM TV damay bàyyi rek suñu gan Serigne Khadim Mbacke Djinéra mu daal di nuyoo ak yéen ñu dugg ci waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay di la ziar. Ah, aleykum salaam ñoo leen di fay yéen waa site bi ñoo leen fay bu baax. fii ak euh, ci ngoon ñi ngi dégg ay kàddu yu jëpp foofe ca Poroxaan ñu jàpp ne nag yoon bi daa am nu mu baaxoo mu yoonu murit tey bi loolu amee yéen lan moo doon seen njëkk réaction nga ñëwaat ñu ci mbir mi. waaw xanaa di gën a dolli sant Serigne Touba bu baax. di sant Serigne Mountakha sahadul mm, bashir mi nga xamne mom la yalla dogal mu nek ci bop khilafa gi jiite murid yeb ñu di sant bu baax ci taxawayam ci rew mi ak tolluwaayam ci rew mi di ñaan ci barke Cheikhul Khadim borom guddal faram euh, tay nak euh, bi Serigne Abdou di siara ci Serigne Mountakha bokku nañ ci ñi andon ak mom dem siyaare ji sëriñ Muntaxa bi ñu demee taawub sëriñ taxa moo teeru sëriñ bi dalal ko ci ak ibbeeku ci bànneex ci mbégte maanaam dangay xool kanamuk sëriñ Koso rek nga xam ne ku belli ku am mbégte ci gan gi ñëw ci loxoom day la ndax dafa japp ne borom daru musti mo ñew siara ci cheikhul khadim ndax serigne abdu bu siara ci serigne mun muntaxa magam la siara ji kon lola, serigne koso def rek moy lam wara def bam mu joggé ci sa kër sëñ koso mu bolo ñok serigne musahin mbacké bi ñu demee serigne musahin dalal ñu ci bir wax deug yalla yóbbu sëriñ Abdou ci sëriñ bi sëriñ bi saafonteeg sëriñ Abdou ci kawug wéet ci ñoom ñaar ak mën naa ne benn benn ja nga xam ne njabootu sëriñ bi lañ dëkk sa kër ga kon sëriñ Abdou sëriñ bi dalal na ko dalal wàcc jox na ko wàcc waay wu sa kër ga war na ko na fii sa kër la te noonu la ko sëriñ bi defee noonu la ko sëriñ Abdou defee kenn ku nekk wane sa cofeel ak mbëggeel seen diggante ñoom ñaar. ci loolu ñu dégg ay kàddu yu jib ci échange boobu nga xamante ne Serigne Abdou Mbacké amoon na ko ak Serigne Mountakha Mbacké euh, ñu daal di wax ni. ginnaaw su mu génnee ci ay bës wax ni toog na juróom-ñaari weer bëgg gis kilifa gi loolu mu mujjul antu waaye euh, bu ñu demee ba nga xamante ne tey ay kàddu yu ngi jib wax ni Sering Abdou mbake sing Mountakha Mbacke dafa am ay kaddu yoo xam ne yëkkati na ko euh, jëmbale ko ci njiital parti Pastef te nga xam ne sax tegginewul sax ñun ñu ciy jaaraat loolu do ci andi ay loolu man dina ma jaaxal ndax abdu Abdou bi mu toogee sëriñ man mai ki tok seen wet te man mi nga na mai kilon ki leen gënoon a jege. mënuma laa wax lii la sëriñ Abdou wax sëriñ Mountakha mënuma laa wax lii la sëriñ tontu kon bunit nit fule se ci ne sëñ Muntaxa dafa dal ci kaw Ousmane Sonko jaarale ko Sëriñ Abdou loolu dina ma jaaxal te ku xam sëriñ Muntaxa xam ne respecté na doomu adama ba bu doon wax loo xamante ni lu jëm ci Ousmane Sonko la da koy da ko koy wax directement moom Ousmane mu déggal ko boppam ma xamit Abdou bu baax xam ne bu ko bi waxoon dara lu mel noonu am na honnêtu taxaw wax na lii la ma sëñ bi wax kon ñooña fu ñu jëlee wax ji ñu jaaxal ak lu tax ñu def ko ak lu ñu si bëgg ak lu ñu si jublu bu dee dañu si jublu yàq derub sëriñ Abdou yàquñ deru sëriñ Abdou ñaka def njabootuk sëriñ bi lañ kon ñoom yàq deru sëriñ bi leen tax a jóg ndax ki doon filmé Serigne Abdou ak Serigne Mountakha ba jëlaale ma ca film ba ndax maa nga toogoon xam naa ko xam naa ko bu wér ñu jàpp na ci njabootu sëñ bi la kon kooka bu defalatul sëriñ bi di yàqal sëriñ bi ñun kat dañ amul jaaxle bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye daal li wér li wér te wóor mooy amul genn kaddu gu ñaaw wala gu nuru lu ñaaw kaddu gu ñaaw sax du jóge ci làmmiñu xalifa bi Sëriñ Tuubaa waaye lenn luy nuru ne sëriñ bii bégut ci Ousmane wala bégut ci tànk Sëriñ Abdou yi amu fa wax dëgg yàlla amu fa. ci mbir mi bu sëñ Abdou Mbacké gis nañ communiqué boo xam ne daal nañ koy dugal euh, sànq ci euh, noonu nga xamante ne mooy Cheikh Thioro Mbacké gis nañ mu dugal communiqué bi muy weddi rek li nga xamante ne moo leen amul donc euh, lan moo war a doon tey taxawaay ci yoon bi. waaw xam nga sëriñ bi bi loolu amee maa ngi moom ñoo bokk jógee Porokhane laata ñuy génn Porokhane sax loolu am na ñëpp woo nañ ko ku ne woo na ko. waaye boo ko woyee lam lay wax loolu amut rek nga xam ne kii kàddu gu dëggu la la wax lu wér la la wax tey dama gis ne site yi nga xamante ni jël nañ ko ci saasi mooy lu si mel ni Dakar Actu ak Bawal Info ak Actu Direct ñoom bu fekkee ne dañu bëgg a jaay seeni ay site internet jaay seeni produit ma jàpp ne ay ndaw ñoo ko moom bëgg nekk dara ci réew mi nañu fexe ba seen seen entreprise yooyu ñu créé di fa jàllale ay message nañ fay jàllale dëgg dafay wax dëgg te xam ne ñaar yi da jóg ngir yàqal doomu aadama te fekk na da koy defaral ñoom dañu ci jublu seen jublu jubluwaay dëgg dëgg du sëñ Abdou du sëñ Mountakha Ousmane Sonko la mujj ju da koo da koo waaw euh, politique moo ko la ndax ñoom waxuñu ne sëñ abdu sëñ Muntaxa da koo wax ne ko bàyyi leen tooñ dañ ne sëñ Abdou sëñ Muntaxa da koo wax ne ko waxal Ousmane xam nga kon ñoom Sonko leen tax a jóg te loolu amut nit nag bu naree yor boppam si ay tappale ak ay fen ak wax lu dul dëgg ba am na la leer na looloo la koy yàqalaat boo dee ndaw ker yee dara bëgg loola di sa jariñu ba say doom di sa jariñu danga koy suuxate dëgg mooy waral ku ne xacca ku ne mën caa jariñu waaye site internet yoo xamante ni du ñu gëstu information ba mu leer ñoom ñooñu ko dugal ñëpp kenn ku nekk ci ñoom amoon na pexe jot ñu mbaa mu jot sëñ Abdou laj ko ba xam ndax biñu leen envoyé vidéo bi ñom gis nañ ma ci mbaa ñu gis ci sëñ Abdou te kenn ku ne ci ñom man nga jot sëñ bi te ñom ñep ñom site yooyu yëpp niñ nekké njabootu sëriñ Mountakha lañ nekkee njabootu sëñ Abdou kon nañu japp ne bu ñu génnee kaddu gu ñaaw jëmale ko sëñ Abdou waxuñu ko sëñ Abdou loolu nag lama leen diggal te di leen ko xelal ñoom nañuy fexe ba lépp lu ñuy génneeti mbaa lépp lu ñuy waxati na nekk lu wér loo xam ne ku ko dégg xam na dëgg la waaye bëgg a jaay sa produit wala bëgg a yokk say vie bu mu leen tax ñuy wax lu du dëgg mbokk internet yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko waaw ñoo ko ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yu Serigne Khadim yi ñi nere muy lu am solo noonu nag euh, dañ koy bàyyi rek euh, mu daal di euh, tàggatoo bu baax a baax ak mbokk internet yi mu daal di ñëwaat ni nga xamante ne moom lay tëjee ay kàddu. waa xanaa di gën a wax mboolem sénégalais yëpp fu waaye sénégalais mën a nekk ci àdduna bi ci diaspora bi ak fu mu mën a nekk. Nak ko biir na kaddu gogu du kaddu gu wér du kaddu gu joge ci sëñ bi lenn rek lañ leen di digal mooy di leen wax ne ñoo ngi gën a jàppale Ousmane Sonko ci procès bii nga xamante ni moom lay déroulé te ñu gëm ne procès boobu mooy li war a mën a génn Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk Sénégal dañoo soxla ay nitu dëgg Sénégal dañu soxla ndaw ñoo xamante ni bu ëllëgee dinañ yóbbu réew mi foo xamante ni suñu xel dana dal te loolu noonu ñu soxla ci réew mi gis nañ ko si Ousmane di ñaanal Ousmane Sonko suñu borom sàmm ko te xamal ko ne ko amul benn doomu adama bu suñu borom. di yéegal ay maqaamam te jaarale ko ci yu mel ni kon dañuy gëm ni lii yëpp ak yokkuteem lay doon tey mbégteem lay doon tey ñu di ko xamal na ko waxtu wu nekk doomu sëriñ bi la taalibe sëriñ bi la sëriñ baa ngi gën a feddali cofeel ci diggante ak moom Ousmane mu ngi gën a feddali cofeel gi mu am ci sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa baayam la sëriñam la Ousmane amul lenn benn kaddu buy jóge ci biti di ñëw ci moom di jëm si kilifa diine yi mu ca wax naka sa dund noonu ni mu defee bàyyi sëriñ Muntaxa noonu la ko defee sëriñ Ababacar Si noonu la ko defee sëriñ Mahi Ñas ñoom ñëpp benn wàccuwaay bi la leen boole yamale ndaw lu mel noonu nag boo ko amee sama réew ay la yéwén dañ ko war a jàpp te sàmm ko ndax sàmm Ousmane mooy sàmm Sénégal te amuñu lu dul Sénégal kon nañu sàmm Sénégal sàmm Ousmane nag mooy sàmm Sénégal ñoo ngi ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa yàlla saa borom defal ñu tawfeex defal ñu mm, réewum naataange defal ñu réew moo xamante ni nit ñi dañ leen tàggat ci dëgg dañ leen tàggat ci liggéey dañ leen yar ci information yi ñuy génne ñu di saytu bu baax a baax di ko jaajëfal bu baax a baax moom Serigne Khadim Mbacke mbokk internet yu TNM TV li ñu leen andiloon ci li nga xamante ne mooy rétablir la vérité mooy andiwaat dëgg ci li nga xamante ne moo xewoon foofu ca Porokhane sànq ci ngoon ci euh, diggante euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke ak Serigne Abdou Mbacke ci kàddu yoo xam ne euh, jib na te jàpp nañ ni wéru te liggéey bi nga xamante ne moo jëm ci tasumkaay xibaar muy recoupement bi daanaka amul luñ ci war ba tax na nag tey ñu ak ni nga xamante ni mooy li ni mel leen jaajëfal delluwaat ni nag TNM TV dina ñëwaat ci yeneen jotaay xibaar saa su ne leen àndal di gën a wër te wóor jërë ngeen jëf. sëriñ bi soxna si bu dee yaa ngi soog a dugg ci chaîne bii di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné ba noppi ba sa cloche de notification bi la ngir mën jot suñu vidéo